di la delloo nuyoo bi di la négee gu rëy di la négee cant gu rëy gun la ameel gun la ameel xam nañ sa seen bët xam nañ sa doxin yëpp ndax lépp teg nañ ci suñu bët. waaw li nga xam ne nag amuñu amuñu warugaru bañ la cee sant. li nga xam ne amuñu warugaru bañ la cee sant. li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. li nga xam ne liggéeyal nga ko sëñ Touba. am na yitte ju fi nekkoon. joo xam ne mel ni mënul woon a ñàkk ci dëkk bi. joo xam ne mënutoon a ñàkk ci dëkk bi. yàlla mi ngi ko jaarale ci sa loxo. yàlla mi ngi ko jaarale ci sa loxo. ba mu sotti ni ko bëggee woon. ni ñu ko bëggee woon. loolu mu ngi fi mooy titre foncier Touba. ak leneen loo xam ne. ak leneen loo xam ne. bëggoon nañ ko ca Ndakaaru googee. nañ ko ca Ndakaaru googee. ndax dëgg la Ndakaaru mooy capitalu Sénégal. ndax dëgg la Ndakaaru mooy capitalu Sénégal. bi sëriñ bi sooboo sooboo liggéey ba loolu moo tax bi sëriñ bi sooboo ngir liggéeyal boroomam. ndakaaru googee. foofee la jaar foofee la jaar. jaarin bi di jaarin wu tiis. jaarin wu nag di jaarin wu tiis. loo xam ne du jóg mukk ci sunuy xol. nag du jóg mukk ci sunuy xol. loola. fa ñu bëggoon fa firnde ju rëy. ndamal loo xam ne ndamul Serigne Touba doon. ñëpp dañ loo xam ne ñëpp danañ ci mën a teg seen bët. muy liggéey loolu mooy liggéey boobee di jumaa joojee ñu def ci Ndakaaru. loolu ku ne xam loolu ku ne xam na taxawaay ba nga xam ne taxaw nga ko ci. foofee mu nekk rawati ca. mu nekk nag rawati ca. loolu muy lu waroon a jafe. loolu yàlla jaarale ko ci sa loxo. muy itte ju mat sëkk akuk dogu. ba loola am. ba loola am. alhamdulilahi rabbil alamin mel na ni egg na ci nan ko bëggee woon. incha allahu ci septembre septembre bii di te incha allahu septembre bii di bëgg a ñëw. Euh, le 27 septembre. dajeeg ajuma ci lañ ko bëgg a ubbi. loolu nag. loolu nag ndamal sëñ Tuubaa rëy la. waaye wax dëgg yàlla am nga ci wàllu wu rëy ndax yàlla moo ko dogal waaye ci sa loxo la ko jaarale kon ñaar yooyu kon ñaar yooyu ndax yi ci des yëpp sax ndax li nga xam ne am na nañu ci waru garu mënuñu la cee ñàkk sant moo tax moo tax bi nga waxee ne tax bi nga xam ne wax nga ne da ñëw tey siyaare si ma xalaat sama moo tax ma xalaat sama bokk yu baax yi. dëgg la kilifa yi yoon wi dajewul. dëgg kilifa yoon wi yëpp dajewuñ fi. waaye tànn na ñoo tànn naa ñoo xam ne. bi leen bi ngeen leen fi fekkee. bi leen fi fekkee. mel na ni fekk nga fi kilifa yi. na ni fekk nga fi kilifa yoon wi yëpp. mel na ni fekk nga fi taalibe yi yëpp. ndax ñii fi teew ñëpp kenn ku ci ne. kenn ku ci nekk yoon wi rek moo di ak dundam te xam nga doxinu yoon wi gannaaw ci ay cant lañ la ameel nu sàkk lim boo xam ne danañ mën wuutu kilifa yi wuutu bokki taalibe yëpp ñu seereel la cant goo xam ne yoon wi ameel na la ko ci yaari yëf yooyu mën nañoo yem ci yooyu rek xam na li ci lépp waaye lii moom amuñu war goru bañ la cee sant kon nag bokk yaa ngi nii yoon waa ngi nii ñëpp sant nañ la gërëm nañ la ci taxawaay bi nga taxaw ci tuuba ak taxawaay bi nga taxaw ci Ndakaaru ak liggéey boobee toll ci sotti loolu amel nañ la ci cant gu rëy kon maa ngi ànd ak bokk yi ku mel ni kilifa yi. mel na ni kilifa yeeg taalibe yëpp mel na ni yi yëpp daje nañu. ñu ngi lay seeral cant goo xam ne. yoon wi amel na la ko. loolu mooy kàddu yi nga xam ne. laa bëggoon a wax. ànd ak sama bokk yi. seereel la ko. ah. mooy li nga xam ne moom lañ la doon déggee. boo ñëwee. xam ne. amel nañ la cant gu wér. waaye sant nañ la cant bu wér gërëm nañ la ci taxawaay boobu sa diggante ak sëriñ loolu mooy li nga xam ne amoon naa ko ci lu ma la war a wax. sant ko lool nag sant la lool nag ci jotaay bi. li nga nu wax lépp dégg nañ ko. li wax lépp dégg nañ mu xam nañ ne yéene ju mat sëkk la. liggéey bu réy réy la itam. liggéey bu baree baree la itam. loolu it dégg nañ ko bu baax. gën naa loolu gën naa dalal suñu xel. ci li ñu bëgg ci Touba. bëgg ci Touba. gën naa dolli suñu yaakaar itam. gën kon jërëjëf. kon wax ni dégg nañ ko bu baax a waaye nag dama baaxoo lépp lu may def dafa am ñu ma waxal. loolu rek la. waaye déglu nu rek. loolu nag suñu aatu nga xam moo fekk na sëñ aatu mii nga xam ne moo nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah teraanga yëpp moom laa ko laa ko tegoon ci loxoom yow nag mi ngi ci sa coobare teraanga yëpp a ngi fi fa nga daan dal itam di la fa teral Mm, bu la neexee teraanga yi ñu yóbbu lépp foofu nga dem foofu bu la neexee ñu fab lépp andil la ko nga yóbbaale ko <laughs>